mais d'abord euh, féliciter douzième Gaïndé pour ce l'excellent travail qu'ils sont en train d'abattre parce que football bi euh, ñëpp ko bokk. Mhm. ñëpp si yëngu. ni joueur bi di dóore si bal bi entraîneur bi di coacher di joxoñ euh, ñun ñuy encadrer ñii aussi dafa am rôle bu am solo bu ñu jugé. dëgg la je veux dire le douzième Gaïndé Allez Casa récemment Lebougui ak entité yi nga xam ne dañuy supporter football bi yëpp. Mhm. mais li ma bëgg a wax si foofu rek. mooy lu baaxul kenn du ko xëccoo ça veut dire que douzième gaynde dafa am liggéey bu ñu liggéey ba mu rafet ba mu baax moo tax xëy na mu am ay xëccoo ci biir boo demee dans le cadre politique dañu naan les grands partis ce des partis de tendance lu baaxul donc kenn du ko xëccoo mais li ñuy wax foofu rek li ma dégg nii si élément bi dafay poser deux problèmes mhm. la problème de la limitation de mandat et le problème de la durée du mandat mhm. te li ko wumba ginnaaw xëy na ay jàppante yi nga xam ne moo fa am xëy na Paco ñoom ñëpp suñuy booy la ñoom ñëpp la ñu yemale. Mhm. bu amul woon li ko opposé ak Issa xëy na du senti ñëw si tele bi ba di wax ni Issa yàgg na fi moom yàgg na fa mook Issa posé wu ko woon dañuy joti xëy na moo tax mu indi lii donc li ngeen di wax ñoom muy moom Issa muy moom Paco ñoom ñëpp ñu dal xam ni ñoo bokk entité bi waxtaan. Mhm. juboo ba ànd nekkaat benn ñun loolu lañ soxla football bi. on a besoin dañuy wax indi benn slogan bu fort. Mhm. manko wuti ndam li donc dañu bëgg aspect yëpp ñu si manko maintenant le problème de la limitation de mandat gis nga le football nag c'est la structure la plus démocratique qui soit dans ce monde là dañuy renouveler à chaque fois que ñu war renouveler mais euh, limitation boobu ñuy wax noonu euh, l'idéal olympique de ko dindi donc nit ki. ñun Sénégal ñu ngi si ay euh, renouvellement texte dañu changer suñuy texte yi mais problème limitation waa ñun Sénégal dañ demoon ba ni noonu nañu limité mais waa FIFA ñoo fi indi mission daal ni noonu limitation mandat amul fenn si football bi léegi nag Issa ñi nga xam ni bëgg nañu place comme man ñoom ñooy développer ay stratégie ba jëlee ko fi si biir renouvellement yooyu ñuy renouveler quant à la nag mm. olof daf naa ni yàgg bawul dara xam nga ñun bu ñu fi soog toog nii gars yi wax nañ fi lu nekk Augustin Senghor daf fi yàgg Aliou Cissé daf fi yàgg dañ leen fa war jëlee. xëy na yàggaay boobu mais xëy na yàggaay boobu nag moo indi tey résultat yi. peut-être te ñu doon wax dañ fi yàgg yëpp. Mm. ñu ngi wax leneen donc yàgg boobu yàgg bawul dara nañ bàyyi rek euh, kii nii. Mm. yàlla mooy def rek yàlla moo ko fa teg. boo ko fi yàlla dee jëlee aussi. si biir douzième gay la xaw ma Paco lay nekk xaw ma kan lay nekk ils ont des mécanismes yi nga xam dañuy renouveler dañu ñëw si mécanisme yooyu de façon très démocratique. Issa mhm. yëkkati loxoom keneen yëkkati loxoom. ñu jongante Issa gagné wala keneen gagné ñu jongante.